waaw dañ fi ñëwoon bon déjà pour visiter marché parce que nous koy gis ci publicité ci réseaux sociaux yi publicité télé bon on a vu que c'était intéressant bon on est venu visiter on en a profité pour euh, pour acheter quoi. Euh, prix c'est bon il y a des choses qui sont très intéressantes par rapport à Dakar mais il y a d'autres c'est quasiment les mêmes euh, les mêmes prix quoi surtout côté côté fruits. conception c'est excellent. Je pense que c'est un truc qui est très bien. C'est assez, assez grand. C'est très grand. Puis j'ai vu qu'il y a des chambres froides aussi hein, pour conserver les légumes, euh, les fruits. En général, c'est un peu ça qui pose problème euh, chez nous. Euh, donc c'est très bien. C'est assez moderne aussi. C'est très bien aménagé. Quoi. En général, par événement, il y a foire. Quoi. Tabaski, ou le Corité, loo ëpp luñ fiy ñëwee mais kontaan ñëw fi nag moom di fi eh, kii nii kon ne moom bariwul luñ koy def. parce que ñun buñ sañoon fii nii en tant nga fiy ñëw di exposer bagage nii di fi def ay ay ay ay foire ak yooyu noonu nga fiy dem ba am fi sa place quoi nga xam ne chaque jour boo xëyee da naan yow man fii laay xëy si client yi di la fekk si ñun loolu moo ñu gënal quoi buñ ko mënoon am. marché bi moom ah, présentable na neex na neex naa liggéey client yi danañ sawar di fi ñëw parce que nekkul foo xam ne naqari naa dem daal. waaw moom da ngay daw si péage bi wàcc dugg si marché bi noonu la demee wala nga jël teer waaw teer baa ngi nii wax dëgg yàlla moom marché bi moom ah, mhm. moom xéwal rek lañ si gis moom wax dëgg yàlla neex na si ñun commerçant yi mhm. te foog naa client yi neex na neex na pour ñu ñëw fii ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw moom gis nga mhm. ñu ngi ñëw suba ba léegi waaw. enfin ñu ngi ñëw parce que man booy seet indi woon naa fi deux cent andi naa fi aussi trois cent sacs pomme de terre mais nag mi ngi dox parce que itam dëkk bi moom fi mu fi payam dox cinq cinq amatul fenn mais nag li tollu wërsëg gi ñi ñu ngi koy jaay. marché bi suñu marché la mu doon un marché moderne boo xam ne amul ci Afrique bu ñu ko defalee jaaykat jëndkat ñëpp dañ ko war a jëmmal ndax suñu xaalis dañ ko defaree boo seetlee tey président bi ko fi defaree nekkatu fi. pour président président Diomaye fay moo fi nekk tey ci ëllëg day dem bàyyi ko fi kon suñu alal duñ ko defar ba pare ñu bàyyi ko ni muy frotter du yoon dañu war a ñëw jëmmal ko di fi jëne parce que fii da nga ñëw daw noo la neex gari noo la neex ci parking yi ñëw jënd noo la neex amul poto poto amul salté amul dara ma loo fi indi sa yërëm du tilim du taq du def dara kon marché bo am importance la boo amul oto mën nga jël terre bi kon marché la boo xamante ni daal macha allah gis ko yéen bi ngeen si ñëwee marché bu len ni amul ci Afrique senegal la am ba bari senegal baye ko melni euleuk ëllëg ko am exploiter ko sax bu ñëwee dina xef senegal bi ko am parce que bo gisé fi ni Maroc ñu koy defar ci Maroc mom roi ba lam la wax moy bu paré mom fa la jëm mom amu ci masla kon ñun ño war jël suñu ala nit day jël la mom mom noko mom nañ ko jël c'est pour les Sénégalais mais bu sété tay parce que bu waxé deug rek ci yalla tax man bi nek ak léegi di observer li fi ñew ci ay étrangers surtout bëgg ko jël mooy même les marocains ak ñeneen étranger boo ko jël buñ ko doon joxe ba nagari marché bi jeex na. mais ñi fi dañ biñ koy defar Sénégalais ñoo tax ñu defar ko duñ ko jox kenn am na ñoo bari ñoo bari ñoo ñu joxoon sax bi directeur bu bees bi ñëw daf leen ne génne ni ki Sénégalais ñoo ko moom étranger moomu ko. kon national bi ko moom national bi war a ñëw jël ko mais nag bu ñu la defalee mbir itam ci jëloo ko day mujj nag ñoom itam nag fi def ay milliards toll noonu di ko bàyyi muy farat dañu mujj jox bu ko defee nag nga dem ba bëgg nag ñëw moo ci ne ci lu ne dañ koy bëgg a jox ab sénégalais mu bañ ñu jëlee ko ba ay étranger ñoo jël ko ñu ne nag ci presse bi ak fële di wax naan étranger étranger étranger loolu doxalul réew réew nun ñëpp ñoo ci war a jàpp mu dox mais ke président bi képp mënu dox réew mi